yéen góor ñi. ah ñun góor ñi. sama xanam fitna bi boo ko solee rek nar ngaa waxate ñun góor ñi waaw. képp ku nga xamante ne góor nga. nga xam ne kon képp kuy wuyoo turu góor rek bisimilah ñoo ngi lay déglu waaw. ngay mag di ndaw. cay ngay mag di ndaw waaw. waaye nag surtout góor ñi nga xamante ne ay mag lañ. maanaam euh, war a konta njaay daal ñi mag ñi waaw. ñu ci ñaata at. am nañ vingt cinq ans. ñaar fukki at ak juróom. trente ans. waa fanweeri at. quarante ans. waa ñeent fukki at. waa cinquante ans. Ah, cinquante waa juróom fukki at tamit. en soixante ans. waa yow ah soixante ans. dama ne. li nga ne nag lañ bëgg a xam maa jaata fan yi maa toppoon gàmmu geeg yooyu bàyyi réseau bi kenn ko ne du dugg di wax lu la neex ñëwaat naa nag toogaat ca sama sées ba ma toogoon nag. lu ngeen waxati nag na ngeen ko xam dégg naa bi ma nekkee ci sama son beeg waajtaayu gàmmu gi yaa nekkoon ci réseau bi lu la saf nga wax ko lu la neex nga wax ko baax na maa ngi lay déglu waaw léegi. ngeen baal ma nag ci wax ci. loolu moom jàppal ne mën a gut a nekk waxagoo ñu lay baal ah. waaye nag il faut que ñu leeral ñu defal leen leeral leen pour ngeen mën a comprendre. ah maman Diatta mii ndax mën na maa xam li ñu war a comprendre lan la yow ah. parce que am na nit ñi nga xamante ne boo leen leeralul mbir mi du ñu comprendre. baax na waaw balaa ngaa àggale sax ma ñëw ci sa jaaro yooyu xanaa tàngal pas si nga def ci sa catu jaaro yi ma nga jaata congolo nga takk de ma ne ko takk nga jaaro yi yàgg de congolo lii li mel ay sarkal waa àggaleel gis nga yéen góor ñi ah ñun góor ñi nga ñëwee tey waaw ñun góor ñi loo ci wax yéen a ngi caaxaane li nga xamante ne mën na leen rey rey maar di taali maar di im si mama jaata sa mbaxanam fitna mi boo ko solee rek doo wax jàmm léegi lu ñuy rey mën na leen ne yóbbu baat sàq waaye kii la moo tax tey mu bëgg waxi dee yow ah. muy lan. muy lan kay nag boo moytu dinaa woo ko la ko laaj. Nafi Mbaye fan la nekk mu ñëw wax ak mama mi laaj ko lii lan la lan la bëgg a wax ah mbës. seen ñaari suufu nen yi. man yi koo neen. seen ñaari suufu nen yi mooy lan. seen nen yi. ah ndax man na maa xam luy sun nen yi ñun góor ñi lan mooy sun nen yi yow nen lan. nen yi. luy nen. neni jàmm lan suñ neni lan yow ah? su may naan neni ne xam ngeen ko. deet mbokk mu ko xam sax amuñu ko. nen mooy lan maanaam lëf de poule. li nekk ci awra bi noonu. Eh, waaye li ci awra lan yow maanaam. li si suufam. ah waaw waaw ma ne ko maman tee nga ne xuur rek gënut ah xam naa mën ngaa guddali wax ba dee de léegi. dama ne dee leen koy yëkkati. Ah, <laughs> ay mbay waaye yëkkatim xóor moom xanaa lu bees la kon bu bees la dafa bees. boo leen ko yëkkatee. waaye yëkkati bi ndax man maa xam lu ko waral ko yëkkatim xóor si jamono ji ah. ko yëkkatee. waa baax na ay wax sax da day egg léegi nangul nañ la loolu ndax mën nañ ko yëkkati waaye buñ ko yëkkatee. ngeen koy def nii. nii. waaye kon mbaa du toj. di làmb. di làmb ah. di xool. waayow jàpp xuur nan ko nii di làmbagat yëf yëf waa bu tojee nag ah yow Mama Diatta bu tojee nag ah. di làmba di xool ba xam am na bul war a amul bul. ah waaw am na bul. bu amee bul moo lay wane cancer la. Eh, waaye ndaw sàmba lan yow. bu amul bul. waa léegi bu amul bul nag. nga sentir ne booy saw day métti day jël tension bi day dagg booy saw day dagg. Hmm. kan la ma fi saw am ay sawam di dagg moom saw kay boo ko safee tarara rek ah lu muy daggee léegi. ah. amul xaa kay moom yeggaleel rek. teel a la dem hôpital. waaw yow moom Adja sa wax ji kenn mënu cee mucc di nga ne bu amee bul cancer la maanaam wéroo bu amul bulit ka wéroo daal mën ngaa dem l'hôpital waaye yëf yi compliqué léegi man am naa bul aw ma bul kon waaw ah yëf la du neexal jënd tey waaw xam ma déglu ko rek aja ñu xoolal la ba xam amoo prostate. ah lan taat yow l'hôpital kañ lañ daan xooli taat. teel a la dem hôpital. déet teel a dem hôpital kay laa du def damay naajee dem teel a dem hôpital ñuy xool say loolu pour lan la. ñu xoolal la ba xam amoo prostate. waaye prostate mooy lan ndax mën nga ma koo décortiquer ma xam ko. bu nekkee dafa am bul. bu dee dafa am bul man da ñemeetuma wax am na bul comme ko bu amee bul bi feebar ka kan ngay kenn wérut. ah. ah ma gën a déggaatoo nga naa ma ah waxal rek. dangay dem ñu xool ba xam nga cancer a amoo cancer. nañu ci yàlla musal lan yow. ndax cancer yi ñu ngi commencé di bari. Hmm. yeggseegul fii de yàlla moom yeggsi. tey ci Europe bi. waaye li ngay nettali foofu ci Europe la xewee rek. daa démb ci guddi gi. ay veru deux heures du matin woo nañ ma téléphone waa ji Europe la nekk mais ragal pour dem hôpital ba ñàkk na bakkanam maar bi taal ñàkk bakkan ndax lan amee na li nga xamante ne mooy prostate waaye loolu taat kon day ree am nga bël ah kon xuur mi mën naa léegi amee na prostate te yëgul ne am na prostate sentir na ne daal am na lu nekk si yaram bi mais ragala dem hôpital ba fu mu toll ñàkk na bakkanam. Ah, ay waay ay waay ay na ko yàlla yërëm. ñàkk na bakkanam te pourtant fii ci Europe bi la nekk. maanaam daal nga xam ne kon ñun ñii ne fii bu ci kenn amoon loolu taat kon tubarkaat la day kolu rek dem moom it ah. te fii ku daq faj fii amul. ah wax dëgg yàlla kon nag képp ku ci làmb rek gisoo bul jéem a kolu nga dem faj rek wax dëgg yàlla. ku ca làmb rek te gisoo bul faju ji fi mu ne nii sama xel daal la tut kat wax dëgg yàlla yow boo amee bul wero boo amul bul wero ah. ku dàq faj européen yi amul waaye ragal moo waral mu dem ko bu leen ragal gis nga boo leen teelee dem ngeen teel koo faj ngeen teel a wér teel a am seen jàmm. léegi buñ teelu te dem teeluñu koo faj duñ teel a wér te am jàmm. <laughs> yéen góor ñëpp laa nga xam ne kon képp kuy góor rek wuyul ma ma jaata dama ne seen nen yi ah, sun ah. dee leen ko yëkkati maanaam dee leen ko dal seen nen yi <laughs> yëkkati leen seen nen ayca ayca waay ayca waay ca waar wa na nen yi jóg ayca waay ayca ayca ku ci yor nen na jóg ku ci yor nen tëgal ko yëkkati ko ayca ayca kon nañ nen yi jóg xam nga jamono ji wér daq lépp di ayca kon dee leen ko yëkkati eh, su ma naa nen na ne mooy awra yi walaay jaata xam nan ko de xóor xóor ngay wax wallaay xam nan ko wallaay kay xam nañ ko di ah kay da ngaa waane di message rek waaye xam nañ ko wax dëgg yàlla na jóg. li nekk ci suuf noonu yëkkati leen ko. ca kaw a kaw yëkkati loxo ca kaw ca kaw a kaw. waaye Pape Diouf nee na woon yëkkati loxo ca kaw waaye jamono ji ñu toll ko yëkkati neen ca kaw a kaw yëkkati neen ca kaw a kaw a kaw képp kuy commentaire na nga bind yëkkati leen sama commentaire bi kon waaw. di ko làmb. ah tey discours Mama Diatta bi wax dëgg yàlla tey nen nga xëyee xuur baax na. naka yow li ma nekkoon ci dëkk bi yëpp yaa ngi ci réseaux sociaux yi dañu bëgg a rek yëkkati leen seen neen yi baax na dinañ yëkkati suñu neen yi ok sa dernière kàddu lan la. xool ba xam am na dara war a amul dara. ngeen déggee ko ni mu ko waxee rek bu baax a baax a baax. bu amee dara dem leen. te boo leen demee bu leen ragal da ngeen wér. kon nag ma ñëw yéen xale jigéen ñi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg lu baax yéen ñi nga xam ne da a am teint noir bëgg teint noir bi gën a rafet wala ngeen am teint clair bëgg teint gën a rafet loo xamante ni bi du yàq sa po dalay defaral foo tollu mi ngi lay defaral yéen ñi nga xam ne da ngeen xaw a kanam te seen bëñ yi ngeen bëgg mu xees pecc maanaam bëñ yu leer naññi fenn nga ko mën a amee mooy góor Gora cosmétique Touba marché Ocas centre commercial sañ Fallou boo duggee première place à ta gauche mooy foofu numéro téléphone am mooy ci affiche bii nii woo leen ko képp koo xam ne dara jaaxal na la ci sa yaram wool Gora bu dee da ngaa am problème mu karaw maanaam sa karaw du saq ak yooyu yëpp woo leen Gora cosmétique borom Touba marché Ocas ajax mi ngi noonu.